maay doomi Double Less rek déedéet neewul maay rek ki Balla Gaye rek déedéet ndaxte yóbbante galgal ubul làmb wallaahi Sa Thiès dafa prouvé di prouvé di prouvé di prouvé ba egsi fii ma egsi di prouvé ba egsi fii rëg-rëg mii ah. bokk ci xale yi nga xam ni rëg-rëg dafa prouvé ah. di prouvé rëg-rëg di prouvé rëg-rëg ba egsi fii rëg-rëg tey ñoom ñaar ah. li nga wax ni léegi combat bii boo leen xoolee ñoom ñaar combat yu bari la may fàttali. laay laa sama xel dina dem ci Xaadim Ndiaye. Xaadim Ndiaye ak Baboy. ak Baboy. seen combat ñoom ñaar buñ ko musaan affiché kenn du nelaw. diggante Yékini Bombardier. diggante Yékini Bombardier. laay laay la laa. diggante Balla Gaye 2 ak Modou Lo ak Modou Lo. bi. Ah. dafa am lu muy symboliser. waaye balaa ñoo sori. dañuy bàyyi ñaari mbër yi ñu nuyoo. Sa Thiès maa ngi lay nuyu. ma bàyyi la nga nuyoo ak wi lay seetaan ak loo leen di wax. waaw gannaaw bu ñu musloo ci seytaane ñu ngi santaat yàlla bu baax julli ci yent bi sant sama ñaari waajur di gërëm assistance bi yëpp di ko dalee ci Père Gaston Makan sama mbokk mbër yi fi nekk di son nuyu sama mag Balla Gaye Marley Mandal Franc euh, Sokku euh, Boña di nuyu Reug Reug di nuyu suma grand bi aussi di remercier waa Forza waa mooy sama grand <laughs> di remercier supporters yi fi nekk yëpp ak amateurs yi ak euh, waa CNG di nuyu ñëpp di nuyu sama adversaire. sa adversaire Reug Reug. Reug Reug ñu bàyyi laa kaddu gi. waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli sonent bi. di ñaanal sama papa yàlla naka yàlla xaaral jënay firdawsi di ñaanal sama yaay yàlla naka fi yàlla bàyyi ba si kanam kanam di nuyu sama mbokki mbër yëpp maa ngi leen di nuyu ah maa ngi nuyu ñëpp mu limee damay juuma ah. di nuyu assistance bi di nuyu sama gaay ah waaw di nuyu waa caare géej aw seen fay ah waa caalaan jonwaar ñoo joor faliya soo basar basul Ah, waa Fimela waa Mbeelangij waa Ganjaay maa leen woo si kombaa bi waaw di nuyu ñëpp moo limee damay jum di nuyu sama gars yi ma àndal nii ah waaw. waa léegi. Sathiès. Sathiès wuyu Cheikh Sarr. lan moo tax nga jékki-jékki jàkkaarloo Reug Reug ni ko dootoo am jàmm dootoo am jàmm tàgg bis ba ñëwul. déggoon naa benn mbër. Ah, ah. bu woon mu ne kii sekkuñu jàmm ñu ne ko lu tax mu ne bëri door la ñu wax. waaw kon kay wa ñoo sekki jàmm bala cinq. déedéet kay. li ñu liyee moo métti bëre la xeex foom góor la yàlla ma yàlla may ndam maanaam maanaam daal bëgg bëre bañ bëre amul maanaam amul lii amul lee fu jàmm yenduwul bu mu fa yi mën na bëri wax ji mën na bëri mais léegi yéen ñaar yéen ñaar est-ce xam ngeen ni yéen ñaar amateurs yi ñoo soxla seen combat est-ce que xam ngeen dayo combat bi yéen ñaar ñi ko bëree war a bëre dayo combat bi est-ce xam ngeen ni mu toll man la neex combat bi mel nii ah yow la neex su ma ko jëlu woon wallaay lazim du jël ku ma ku ma sut lu tax xool ko rek sa fois sa fois bu communiqué ak ñi mu war a may ñi ko war a may sens ñooñu tontu ko loo xamante ni du ko neex après mayow ma sens damaa liggéey ba ñëw sa kaw loolu naa wax dina leer sama fa sa jege voilà sama kaw doo fa sa jege yaa may dégg su ma ko jël woon ay na ay ay yeneen booy lay jël combat bi du am mais Sa Thiès day bëreel combat bi moo ko moo ko moo ko sut moo tax man sama ampleur dama kaa travail si ma génn nit ñi dañ may xool maa ko ñafe maa ko liggéey si làmb li ngay wax ni dafa amul sens ndax a moo tax di nga gis ko am 6 combats dem bëri ko am ay ay 12 combats du dëgg taxul mu def ko mais mais mais tey jii ñu gis fa ñu gis rëg-rëg boobu ba léegi mi ngi compétir mais yow boobu ba léegi compétir oo est-ce que loolu yaa ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax ndax ndax li mu boole yëpp muy MMA ndax MMA xam nañ ni moo tënk sport yëpp yëpp yëpp looy wax ko looy wax ci loolu non boo xoolee daaw daaw jég laa bëri mu bëri daaw kon maa ngi compétir. mais mi ngi compétir ci MMA bi ba léegi. MMA fii fonctionné wu fi. ah déedéet. non man xam la fan laa bëgg ñëw ci. rek rek xam nga fan laa bëgg ñëw ci. Ah. yéen ñaar combat bi sànq dafa am lu ma leen wax ñun ñi nga xam ne dañ nekk ci rajo yi ak télévision yi di def émission quatre-vingt-dix pour cent population Sénégal amateur lamb yi dañ naan Reug Reug Sa Thiès la bëgg Sa Thiès combat bi est-ce que xam nga daye bi mu toll ak adversaire bii nga jël. ay qualité am bokk na ci li tax nga jël ko mën a bëreem tax na nga jël ko parce que nee nga ko daal la may chance dama lay may chance d'accord mais quand même moom nee dafa liggéey bi egg si tey bis ba naka ngeen koy waajale nan ngay waajale sa adversaire bi su ko nangoo keroog mu bañ ko tey dérangé wu ma day ko témoin falaa yem beneen bi ci des mooy nit yenn saa yi di nga sacrifier sa bopp bëgg topp bëgg-bëgg nit ñi ngir lu ñu bëgg ñoom gis nañu man ak Reug Reug mooy combat bu neex kon yaakaar naa ne mënuma lu reculer waat dellu jox leen li ñu moom di ci remercier per Gaston ak Makan ak staff yëpp di leen ñaan aussi tamit waxuma bii kase ndax li seen kanam bëri na yeneen combat yi gën a neex ñi ngi suñu kanam rëg-rëg dégg nga question bi dama la koy jox tamit per Gaston ngi nii waaw Makan a ngi nii duñu ma bàyyi ma fenn ah. musumaa toog ne ma jox ma saakees dañ maa propose saake ma leen jëluma ko laaj leen mu ngi nii duñu ma bàyyi ma fenn waa loolu defal naa nga rek li muy wax wax pare mais moom wax sax dama laa may nga wax. non non man waxuma yóbbale kii laa wax bàyyi ko ma àggali. ayca ayca ayca wax li muy wax ak li ma wax dañoo bokkul. non d'accord ayca Reug Reug ayca. nit il faut nga nite. ayca ayca Reug Reug xam nga tey jii. Sa Thiès lambu nañu seq sama nite sama réewande sa yoon nekku si nañ seq cadrewul lambu mais moom ma ñëw rek. comme gis réew yow la beneen bi Sa Thiès lambu moo ñu boole dañ kaa fay xaalis bëri fay ma xaalis bëri. yaa may dégg làmbu sénégalais ñoo soxla combat bi ma def samay preuve yaa may dégg waaw. mooy làmb boole ñu mooy li ma leen wax léegi war bëre. voilà mais bis ba. balaa ngaa ñëw ci bis bi. Uh-huh. dama wax li may wax mu tontu lu bokkul. est-ce que yaa may dégg baax. gars yi gars yi ñu dégloo rek. gars yi ñu dégloo rek. dama ne wax dafa laaj dégg-dégg. yaa may dégg su fekkee xelam nekk fi moo tax mën na ko andi sa xel bi. danga ma ne la combat bi bu tollee fii a cause de man. leer laa la wax si su ma nangu loon bëri moom wallaay lazim ñu ko war a may sens duñ ko may sens. waay doo ma yow nga naan ñu la war a say duñ ma may sens. du ma la bàyyi ba keroog la cinq. yow da nga ah, bis ba. yaa may dégg li may wax ni xam ngeen ko. li ma koy wax moom xam na ko keneen ak keneen xam na ko. Sakess dama magal wala. Sakess. Sakess. dix combats. wallaay lazim laa gis. billaahi wallaay taal ma daan ko dix jël yoo xam ne bokkul. maa xam mën fuuf man ku la man loolu il faut que xëy tëddaale di koy yow waale bu fekkente ni su fekkente ni xaw ma nag yaa ngi xool xaw ma fii ngay xaw ma fii ngay xool sama doom sama doom la xam moo ma la gënal sama bakkanu doom xëyuma sax di la gént di la xalaat sama côté ba ma ci benn côté nee naa la nee naa la sama doom sama doom man ma ne saa yow papa kii nii lay bëree nii lay daanee ma ne ko doom toogal ba bis ba yow da ngaa neex <laughs> sa bëri sëlmër boo xam ne saaga instant yow sa xel mi naw bi man maay sëlbal boo xam ne kenn xawul lu may bëre man foo ma kupp ma baatare war na yàlla mënoo bëre barki sëñ Bamba man leeru arxuraan xam ne gis nga jënd mbër bu amoon waa géej waay mën nañuy jënd barki sëriñ tamit ñuy yeewoo géej waay ñaanuma yàlla li nekk fii yow nekk ci man parce que man dafa leen lu nekk sama bopp lu bokk ak sa bopp dégg ma la sa bëre ma la li nga gën a bañ ci àdduna ci làmb moo ne ci man te dinaa la ko def du ma la déglu xamatu du ma la amoo dama ne la waaw loolu yow la waxal la neex ma tontu lu ma neex loolu yow la voilà yaa may dégg man du ma mbaam adversaire yi nga am de ma la wax Sa Thiès yow Sa Thiès bañ Sa Thiès faale ma la jërëjëf loolu toppatoo ma ko sax faale ma la naa la wax dara lu bëriwul lu ko jërëjëf bis ba dérangé wu ma mu lay neex mu lay naqari sa géew ba lu fay am maa koy dirigé man maa lay fooy nu ma neexee daan barki Serigne Saliou laa yàlla xam ne billahi dina la fooy nu ma neex loolu lay daan baax na ba biir waaw jërëjëf billahi bu la neexee andi sa garante ma <laughs> andi sama garante yow da nga neex andi sa garante ma andi sama garante bismillah na neex indi sa garante ma indi sama garante non non non non non non non non non loolu kay du problème. non garaawul garaawul abal ah, ma sama carte abal ah, ma loolu du problème. <laughs> wane li maa la gën a doon lu ñuy def seet ñoom ñaar ku ma. seen âge. waaw. seen âge. waaw ma xool carte d'identité man maay liir. sa sa génneel ma liir. Cheikh Sarr liiral. waa da génnee. du ma liir. non du du ma non du ma liir damay xool rek bàyyi non du ma liir date. waa léegi léegi. tur ça n'a rien à voir waa léegi léegi yow booy da nga am ay carte d'identité bari sax yow sax yow policier laa lay boole yow carte d'identité bari nga am <laughs> jërëjëf. acca léegi. non gis Sa Thiès ñu xool. waa gis nañu mi ngi nii. waaw jeex na mi ngi noonu gis nañu mi ngi nii. bëti <laughs> neexul nag. <laughs> sa oto ngay xool nii. bëti neexul booy ñun ñaar ñoo maase dëgg <laughs> il ma xoolal la ka waay. da ngay constaté li nekk sama téléphone. Aliou Ndiaye nekk Sanchez. ndeysaan Aliou Ndiaye nekk Reug Reug. non non yow booy sa affaire leerul bari ku gën a doon xale ngay voté fii ma ku gën a doon xale yàlla naka yàlla may ndam amiin yaa rabbi na boppu ñaanu waaju tamit yàlla naka yàlla may ndam amiin yaa rabbi na léegi na tàggool ta léegi wool ñi lay jàppale Reug Reug vraiment signature bi neex mu ngi xool mu ngi xool esa neexul nag non garaawul <laughs> non léegi waxal moom dina ko génne signature bi lii lañ ci bëgg mu doon signature boo xam ne vraiment dinañu waxante jaay combat bi euh, Cheikh Sall bi nga moytul man mbër bu ci dóor mën a dóor yi <laughs> mbër bu ma ci dóor bu la dóoree. ma xool ma xol ma xool. ah waaw waaw d'accord jeex na gis nañ ko. Eh. léegi gis nañ ko non non non non non non. non ñun ah. non ñaar ay xale ngeen. maay ñëpp maay seen jeex na. <laughs> samay ñaar ay booy lañu. léegi nag léegi nag non non non. non non non non non nañ bàyyi noonu nañ bàyyi noonu. aca saa saa la jàppale Malick. Saalum. liberté wóor mooy ñaari ndaw ñoom ñooy daje. ay xale yu tuuti lañ nag ay xale ñaari xale yu toll ci seen diggu doole ñoom ñooy daje ay xale yu tuuti lañ. ñaari xale yu nga xam ne làmb moo leen boole ñoom ñooy daje. ma jox la ñaari chiffre yuy wane ni ñaar ñii dañoo war a bëre. muy le chiffre 16. Sa Thiès 16 combats. Reug Reug 16 ñoom ñaar kenn ku ci nekk. am nga 14 victoire Sa Thiès 14 victoire ah, amoo 14 ñaata nga am Reug Reug 14 victoire dama ni kii musul dégg muñal kii dégg na muñal mais li werte woor mooy yéen ñaar bu arbitre bi génnee seen diggante. recours ba lañ dugaloon moom xam ni runkum moo dugal moo dina am. <laughs> Sa Thiès. Ah. bu ñu waxalee te yàlla rek tax. waaw. combat yi jànqam yëpp. ragal moo tax mu ñàkk ka ndax day pët pëti ragalul ku wax jee fi nekk ni muy pët pëti rek gis nga am ragal boo ko bëggee xam at bi danaan prix mu jeexal lamb ji dañ koy cons ñu xeex bëre. c'est le meilleur combat de la saison. nga dégg c'est le meilleur combat de la saison. xam nga lu ma ci métti. voilà léegi nag bëgg na nga ma lay wax ma koy wax. bu combat bi passé. na góorgóorlu daanu bu mu am lu mu lay. magam magam day cons lamb ji. loolu maa ko ñaan rek mais moom ragal Salla moytul ñii. ayca léegi tàggoo leen. baax na Sa Thiès lan ngay ayca Reug Reug. Reug Reug looy tàggatoo Reug Reug lan ngay tàggoo. lan ngay lan ngay wax ñi nga xam ñooy say supporters ak ñi nga xam ñoo lay ñoo lay bëggee. waaw maa ngi gërëm waa Thiaroye Géej yëpp aw ma seen fayan ah. sama gars yi ma àndal yëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëma ah. waaw di nuyu waa CNG yëpp bu ma limee damay juum waaw di gërëm waa Thiaroye Géej fukki pecc ak ñaar yi maa leen di wax ñu ñaanal ma bu baax a baax di nuyu waa Thialane aw ma seen fay di leen wax nañ gën a jàpp waa Caalaan Jonwaar Ñoojoor Falya Soo Basar Basul ah Ngajoor ah waa waa Ndangaan Samb ah mar Sum Marfaafaxo Sulu ñëpp maa ngi leen woo waa Mbeele ngi Gànjaay ah Joof Yor ñoo ñëpp maa ngi leen di woo ah, di leen wax combat bi seen combat la xam nga ma la expliqué combat bi seen combat nañ ñëw jàpp incha allah la cinq la cinq si kattanu suñu borom dama lay duma dama lay daan jërëjëf Sa Thiès. Sa Thiès looy tàggoo. waaw di santal yàlla baax a baax. jërëjëf Reug Reug merci beaucoup di remercier ñi fi nekk ñëpp. di gërëm ñi nga xamante ne ah, ah jërëjëf. ayca Sa lan ngay wax say supporters. di gërëm waa Pikine ah. Pape Sarr maa lay gërëm. di ñaanal Sokh yàlla na ko yàlla may ndam ah. jërëjëf maa lay maa di bëggee ñëpp. lu tax may tudd lu tax may tudd waa Pikine sama yaay foofu la jóge voilà. Sa Thiès ay ca Sa Thiès jërëjëf Sa ay ca Sa de toute façon ñi ngi santaat yàlla baax a baax a baax ay ca ay ca di ci wax ni tamit aussi bu ñu fi waxee loo xamante ne dafa dabar de ñi ngi ñi ngi ñaan yàlla ñi ngi ñi ngi jégalu bu fu matee tamit ñu xamee ci yàlla la beneen bi ci des mooy maa ngi gërëm waa Géejawaay waa Buun Kër masaar Casamance Guinée Kolda di gërëm waa Mbuur Touba Tivaouane Kaolack Yoff di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni samay mbokk lañ samay am di jàmm di gërëm ñi nga xamante ni ñoom dañ ma leen xamee jërëjëf encore. jërëjëf Sa Thiès Pape Ma du nuyu damay àggali di àggali àggali di gërëm Moussa Fall Pape Mama Andaw Sadio di ko gërëm bu baax a baax waa Gambie yëpp fan si club yëpp nañu préparé ñëw di ñaana yàlla Marley yàlla may ko ndam bu yomb bu sedd di ñaan yàlla Balla Gaye yàlla may ko ndam moo xam day mbéj moo xam day ëf man nag maa ngi ñaan yàlla ma faxas mu këlëb jërëjëf di gërëm di gërëm paa boobu. Seba maa ngi lay nuyu ah. maa lay gërëm bu baax a waaw di gërëm ñëpp. ay ca jërëjëf waaw jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ay ca Sa Thiès jërëjëf Cheikh. Cheikh. Cheikh Sarr léegi nag. Cheikh léegi wuy ma léegi nag.